UCAB la radio au service des populations. communication, Université Cheikh Ahmed Bamba. groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. yi fii ci UKB FM ak Mouhamadou ñaari waxtu ci bëccëg fegg na fanweeri minute ca Madiana jàpp Sambuqatul Mubarak xibaaru digg bëccëg gi. bopp xibaar yi ci gën a fës ñu fas leen ko faram fàcceel bokk na ci ab ndaje mu évaluation mu ñu doon amal jëmale ko ci màggalu ko Kazu Rajab gi ñu fas yéene amal ñu ko doon amal nag ci njiital kile di Ahmadou Diop di préfet bu Mbàkke dinañ ci ñëw ci xibaar yi ba tey tam ci xibaar yi dinañ wax ci recensement bu muy wàññi bu fas yéene dañu koo def file ci biir réewum Sénégal loolu yi nag nar a yegg file ci dëkk bu sell bi lee Touba lu ni mel waral kile di Serigne Saliou Dieng di chef de village Boukhatoul ji lu jëm ci wàllum politique ñooñu PRP yu Déthié yi nekk fële ci euh, Mbacké ñoom itam yëkkati seen i kàddu ci manifestation yi amaloon rek di ko ñaawlu seen ay kàddu Ibrahima Goumbala dinañ ci ñëw ci xibaar yi ba tey ci manifestation boobee euh, juróom benn fukki nit ak juróom-ñeent lañ ciy jot a jàpp ñooñu nag suba lañ leen war a àttee incha allahu rabbi dinañ ci ñëw leeral ak Pape Sayer Mbaye danañ dem ca Diourbel wax ca ña dëkkee ca gox bi di euh, Tooki Gaar rawatina ca village yooyu di Ngonging ak Jabax ñoom it yëkkati seen i bi xam ne li ñu bëgg rek daal mooy ñu taxaw leen ndax dara rek amatul ca seenub dëkk dinañ ñëw dinañ ci ñëw ci xibaar yi mbokk yi lii lañ fi fas yéene faram-fàcce ci xibaar digtal leen li ci yéenekaay yi ñu fas yéene ci ànd ak Pape Saer xibaar yi daal di buur ñu daal di ñaanalante xibaar yi fii si UCAB FM ak Mouhamadou Moustapha Ndiaye Cheikh Bey mooy ki ne ci machine bi Mouhamadou Moustapha Ndiaye mooy ki ne ci micro bi mbokk yi dal leen ak jàmm ci rajo rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di bawoo file ci Touba Ndam ngeen ñuy teewlu ci bande FM bi ci 103.5 waaye fépp it foo leen ne ci àdduna ngeen mën ñoo teewlu boo leen defee ñetti w point sunu fm point com xibaaru digg bëccëg gi. groupe de communication. université ni ñu leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi la ñu koy door rek màggalu kazu rajab gi ñuy waaj jamono ji gannaaw ba ñu amalee CRD amal ab CDD amalub CLD démb nag lañ doon amal réunion d'évaluation di xool ana fu ñu toll rek ci wàccaayu réunion boobee nag ñi doon amal ki ko jiite woon di Amidoune Diop di préfet Mbacke. ba ñu ca pare nag yëkkati na ay kàddu di leeral fañ ca toll ak matukaay yu fas nañ koo jël ci màggaluk ren gi Amidoune Diop di préfet Mbacke ay kàddoom ñaan doo teewlu ko. pour defar euh, li ñuy tuddee évaluation préparation magal bu Kazu Rajab nga xamee ne ñoo ko prévoir le 17 février euh, muy ajuma li nga xamee ne que mooy ñu ñëw incha mu nekk événement bu mag ba nga xamee ne que moom la ñuy préparé nga xamee ne euh, réew mi yëpp dinañ fi mën a yëgse ci taalibe yi mu laaj nag participation acteurs yëpp notamment acteurs administration mais également yeneen acteurs yi nga xamee ne que ñoom ñoo nekk ci dëkkam ñu defoon nag ci bi ñuy préparer événement bi ñu def ci li ñuy tuddee benn CLD nga xamee ne sous-préfet moom moo ko piloté ak beneen réunion ba nga xamee ne amen na fële ca Diourbel muy CRD euh, nga xamee ne gouverneur de la région moom moo ko jiite woon ci biir loolu mu amoon ay ya nga xamee ne que comité d'organisation bi laajoon na ko pour mën a euh, bés bi mais également ay engagement ya nga xam ne service yi maanaam service technique yi jëloon nañ ko pour vraiment ni ñuy participer ci euh, bës bi ñu man ci gis euh, ci secteur santé euh, lépp li nga xamee ne que mooy point mobile avancé euh, mais également lépp da nga xame ne que ci wàllum médicament wala personnel ñoom par rapport ak engagement yi ñu jëloon yëpp dinañ ko mën a def mettre en œuvre également avec la participation de la Croix-Rouge nga xamee ne que ñoom tout le personnel dañ ko mettre à disposition pour vraiment accompagner les services de santé Euh, pour mën a euh, benn dispositif bi mu mën a mucc ayib euh, li nga xamee ne que moom moo jëm ci wàllu sécurité également mu nekk lu am solo parce que muy sécurité sanitaire surtout waa service d'hygiène ñoom it jël nañ leur disposition ba li nga xamee ne que moom mooy traitement des domiciles def nañ ko ba pare léegi peut-être euh, lii nga xam ne moom la def mooy saupoudrage bu ñuy def euh, dans la ville euh, à partir du mercredi quinze nga xam ne que dañuy saupoudrer dëkk bi pour mën a rendre effectif li nga xam ne moom mooy li ñu waroon a def beneen bi muy la sécurité avec la police ñoom aussi tout le dispositif nañ ko mettre en œuvre te yit dinañ defar li nga xamee ne que moom mooy plan de circulation ba nga xam ne avec le comité d'organisation dinañ ko partagé pour man a euh, wax ñi nga xam ne mooy pèlerins yi plan de circulation bi ñu maintenir ci pour mën a faciliter démarche dikk bi également gën a mën a sécuriser zone yi euh, gendarmerie également la même chose euh, nga xam ne ñoom jël nañ les dispositions pour lépp li nga xame ne que mooy Euh, contrôle routier wala euh, contrôle dispositif yi nga xam ne moom la ñuy def ci domicile militaire yi ñoom it jël nañ de disposition pour mën a euh, def loolu. sapeur pompier yi ñoom aussi lu si dem ci grande cuisinière également sécurisation autour de la mosquée mbir biir mosquée bi yëpp ñoom jël na déjà leur disposition donc sur le plan sécuritaire daal tous les services de sécurité de défense et de sécurité maanaam jël nañ seen matuwaay. pour mën a euh, satisfaire li nga xamee ne mooy besoin bu euh, comité d'organisation euh, si mbirum ndox ak assainissement mbirum ndox moom disposition yi jël nañ ko parce que li nga xamee ne que mooy douze forages yi nga xam ne ñoom ñoo gën a impliqué ci màggal bi ñoom ñëpp ils son fonctionnels et que yeneen disposition dinañ ko jël pour mën a yokk ndox mi maanaam muy ay camion wala muy ay bâche à OFOR euh, euh, jël na euh, encore engagement pour mën a mettre à disposition lépp li nga xam ne que moom la comité d'organisation bi laajoon pour mën a satisfaire vraiment la demande yeneen yi nga xamee ne que mooy entretien yenn yenn kii nga xam ne dañu dem def baisse de devis mais yooyu forage yooyu impliqué wuñu directement ci ci mën naa wax ne que màggal bi mais entretien yooyu dinañ ko def pour mën a relever les les baisses de devis de débit et également yi nga xam ne ñoo nekk à l'arrêt ñu mën ko réparer dans les meilleurs délais euh, par rapport à l'assainissement moom li nga xam ne moo doon engagement ONAS mettre à disposition des camions euh, ONAS mettre na à disposition cinq camions également pour cinq jours euh, def nañu liggéey bi et liggéey boobu it maire bi mu ngi koy complété ak camions yi mu mettre à disposition Eh, loolu dinañ ko wéyal ba nga xam ne ne que besoin yëpp dinañ ko mën a satisfaire euh, beneen bi mooy par rapport à l'énergie muy Sénélec euh, bépp li nga xamee ne que mooy engagement Sénélec euh, ñoom déjà jël nañ seen disposition te engagement yi ñu jëndoon vraiment satisfaire nañ ko toujours dama ko fàtte woon sànq si assainissement muy ICG également ñoom aussi ñoo ngi joué partition si mbir mi par rapport au nettoiement ak également Euh, yenn zones yi ñu mën ko di euh, setal euh, beneen kii bi muy lu jëm ci biiru élevage maanaam li nga xamee ne mooy saytu jur gi mais également li nga xamee ne mooy yàpp bi ñu xam moom la ñuy ndawal bi ñuy utiliser ñoom déjà jël nañ leur disposition te dispositif bi à partir de mercredi dañ ko def aussi bien ci daral yi mais également ci Euh, kër euh, kilifa yi nga xamee ne am na yooyu. Euh, commerce également dina béyee bi ñu tuddee bon approvisionnement du marché déjà ñoom contrôle qualité bi déjà commencé nañ ko depuis semaine bi nga xamee ne que moom moo passé dinañ def aussi li ñuy tuddee contrôle des des prix mais également approvisionnement bi marché bi dinañ ci veiller Sonatel moom dina jël na ay engagement par rapport amélioration qualité réseau bi également li nga xamante ne moom la comité wi demandé ñu accompagner ko ci pour euh, vraiment màggal bi mën a jaar dans de excellentes conditions. Amidoune Diop mooy euh, préfet bu département bu Mbacké ndaje moomu nag euh, wala boo kàddu yooyu nag mu ko doon yëkkati démb ci ndaje mi ñu doon amal rek jagleel ko évaluation gi maanaam fi ñu toll ci wàccaayu màggalu Kazu Rajab bi doon ka doon taataan ay kàddoom nag di soxna Ndeye Awa Sambit taataan ay kàddu yi kile di sëriñ Ahmadou yu Mbacke moom sëriñ fàllu moom lañ dénk wàllu communication gi di jokkoo gi ci màggal gi moom itam yëkkati na ci ay kàddu delsi ci wàccaayu ak solo màggal gi sëriñ Ahmadou yu Mbacke ay kàddoom ñaan na doo teewlu ko. bis bi nag doon di bis bu am solo boo xam ne dañ ko war di wax sax bis bu set ndax alxuraanul karim la. alxuraan moom damaa jég dama jéglu sax baatu sàppi kenn ñu mu ko ci wax bis bu set ñu faatiha ay yoon ci julli te loolu. fàttali la wa dakir fa inna dikra tanfaul muminin dakir in nafaati dikra kon ñu fàttali nag bis bu màgg la di bis bu tedd bis boo xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf cee teraloon soppeem ba di jaamam ba di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam reñaane ko jëlee ko masjidil xaram yóbbu ko masjidil aqsa waaye yéegal ko nag ca déeneem bi mu dem ba fa ko soob mu won ko fa la ko soob jox ko fa la ko soob déey ko fa la ko soob waaye jox ko sëriñ ca boo xam ne moom na lu indaale moo tax léegi bi waxtu bi julli jotee ñu ne nañ joxe waxtu yi ndax ci fàttaliku buñ ko ko mën mënoon wax anniversaire yu julli mooy tey te ki tax ñu daje fi muy Cheikh Mahamadul Fadil di di di di di Cheikh na Ahmadul Xadim dafa fonkoon jaamu yàlla ba wax ne lépp lu ngeen may defal bu waxtu yu jotee li ngeen bàyyi loola dem joxe farata yi misaal yu bëree bëri am na ci waaye bindal nu ko ne wa wa alam bi anna salaatuna fi awalil awqaati def naa ne béy boo waxoon nañ ko daal dem jeexal ji farata yi kon bis bii ñu di dug dëgmal si mooy bis bi nga xam ne ci la borom subhaanahu wa taala farataale woon julli waaye Cheikh Mahamadou Fadil feeñ ci isra al miraaj nag alquran moo nu ko nett ñun ñëpp jàng nañ ko ci alquran waaye Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu moom itam nett dañu ko ci anam goo xam ne eh, buñ ko ñemee wax dañ naan dangay defe ni kii moom da ko fekke ndax na mu amee la ci xew ña mu romb kër yi ñu ko jox na ko borom bi subhanahu wa taala def lépp dana ko dana ko dana ko bind dina ko jàng waxtu wu ne sural amini maal amini fawqal amini bil asfiya qad xaasa faqra min xiina azu aqra bil jismi jahra bil imtirai qad baata yasri min baadi sufri min dima bisi ilal nga xam ne noonu la ko tuddee qad qaddamoohu nga xam ne day mel na nag ñam doon romb nag waajahu waxtaramoohu lal naqaay wa saada fihim wa baana anhum wa sayna anhum lépp sëriñ bi nettal ñëpp di ko jàng kon bis bi dafa tedd am taarix boo xam ne alxuraan da ko indi Cheikh nan Xadim radiyallahu anhu leeralaat ko muy bisu jullit yëpp nag waaye Cheikh Mouhamadou Fadel mi nga xam ne moo ci feeñoon ñu di ko ci fàttali di ko màggal di ko ci ñaanal di ko ci di ko ci di ko ci ziyaare moom doon koo xam ñëpp amul woon li ñuy tudde xejj ak xeet nit ku nekk rek yàlla mi ko bind la daan fàcc moom loolu sëriñ bi wax ne waraa fi kulli xalqin xaqa man xalaq te muy xadis xadisu sallallahu alayhi boo xam ne sëriñ bi ñu ko leeralaat noonu la doon dund muy bisu ñaan di bisu ziara di bisu bernde di bisu jokku mbokk di bisu fedd li kolëre di bisu ñaan ñaanal way dawli yi di bisu jàng xasaayid yi nga xam ne lépp lu ñu nit ki mën a xalaat ci tudd yàlla ak màggal yàlla ak wéetal yàlla waaye tagg borom bi subhaanahu waaye ñaan tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak julli ci moom ak ñaan lépp sëriñ bi def na ko ci anam goo xam ne jàpp nañ ne mën nañoo jàpp ne keneen rafetlu ci kon loolu bis bi dañ cee war a def mooy bis rek moo ko tax a waaye doon bis boo xam ne itam ñëpp dañ ko bokk te ñëpp nangu ne ko bokk ndax am na sax ay réew yoo xam ne bis boobu ñu ko defee ba ci suba su feet la cee doon Cheikh Ahmadou Moussa Falilou mi nga xam ne moo ko moo ko moo ko moo ko taxawalal Cheikh Ahmadou Fadal daana am ay ndaw yu mu yebal bitim réew ñuy dem di fa màggali gi bis boobu waaye foofu am na ci réew yoo xam ne léegi jullit buñ ko mosaan dem dañuy fett na ñoom bis bi buñ mag buñ ko defee ba ci suba sa guddi ji ba ci suba sa feet lay doon kon bis la boo xam ne àdduna bi yëpp ñoo ko bokk Sëriñ Ahmadou Badawi Mbacké ki doon taataan ay kàddoom nag di uh, soxna Ndeye Awa Samb jamono ji la nag euh, ñuy wàcc euh, recensement bi di wàññi gi ñu fas yéene wàññi askanu Sénégal fi la nag ci dëkk bu sell bi de Touba tamit ñu fas yéene fee ñëw ngir amal lu ni mel loolu yi nag euh, waral ki la di Serigne Saliou Dieng di chef de village bu Boukhatoul Moubarak di ab dëkk bu nekk fi la ci Touba yëkkati ay kàddoom di dellu ci solo gu wàññi goog yi am na ko waaye tamit di soññ ay naataangoom chef de quartier ak chef de village yu bëgg na rek saa su ñooñu ñëwee ci seen i kër rek ñu yombalal leen mbir mi Serigne Saliou Dieng ay kàddoom ñaan na doo teewlu ko. Touba de saa bu ñu ko recensé ba ne li ma gëm mooy genn wàll ci tax duñu ko bind loolu am naa ci lu wàll ràññ waaye daal man sant naa ci yàlla baax a baax loolu ci man daana ko def ci soññee bi. maanaam sàkku ci délégué de quartier yi ndugg ci askan xamal leen ni lii ñu def njariñ la te maanaam ñàkk defit maanaam sunu pertement dong la ndax nag wax dëgg yàlla am na loo xëy daal mënta nekk bàyyi ji daal li fi saa borom def ci mbooloo ñu xëy moo doon deuxième ville ci Sénégal buñ demee ba population di yemoo benn population benn benn département dong wax dëgg yàlla ñàkk a tege ci yoon la maa ngi sant mbooloo bi na ñëpp maata ci bind nit ñi suñu njëriñ la ñun ñëpp kon nun ñëpp noo ko bokk nañ ci ànd nanu maata ci bind délégué de maa ngi leen sant ñu dugg ci wax leen maanaam ñu bind ñuy bind it nañu ànd ko teey axul dal teey axul dal man de jamono may recensé ne ma dara recensé ku ma sa jël kër bu ma xëyee damay ñëw toog ma toogee ne la yow wax wax wax sa tur wala kan ak kan fi nekk maanaam ma bind wut noonu da laa recensé woon li ma recensé woon lépp noonu laa ko recensé woon ginnaaw ba nañ yan yi dañoo tox waaye li ma gëm daal maa ngi sàkk ci galegati kat yi daal ak bu ko defee bu kootu baar ñëpp nañ maa ci bind ndax bokkatu paara kat su mu doon dafa leen taw suuf yoo xëy maanaam benn village amu ko ñoo ko déglu na jéglu ci kàddu bi waaye daal su ma sañoon daal ñun ñëpp daañu maase di dund yàlla suñu borom defal taw ci barke Amadou Bamba kooku ngeen doon ah, teewlu kon ah, di ah, Serigne Saliou Dieng mooy chef de village su Touba Boukhatoul rek di ab gox bu nekk file ci Touba mbokk yéen a ngi wéy di déglu xibaar yi ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawoo file ci Touba Ndam ginnaaw bu ñu jógee ci lool yi dañuy wax ci wàllu politique ñëwaat nag ci manifestation yi fi amoon lool yi nag waral ñooñu Déthié Fall yi bokk ci parti bi di PRP file ci Mbàkke yëkkati ay kaddu nee nañu nag manifestation boobu yi fi amoon nag lu njiik njaak autorité yi ñooy njaak ndax li waroon rek mooy daganal boobu yi manifestation loolu yi lañ ne bu ñu ko amaloon rek lu ni mel du am leneen tamit lu ñu xam ne nee nañu lii day delloo gannaaw démocratie dëkk bi lu jëm ci seen wàllu parti boobu yi tamit nee nañ ñu ngi fagaru rek ngir bu élection yi ñëwee rek ñu mën cee am lu am solo Ibrahima Goumbala bokk ci ñenn ci responsable yi jiite PRP ci Mbàkke ay kàddoom ñaan na doo teewlu ko. ñaawlu événement yi am vendredi passé ndax loo xam ne lu waroon a mën a lu ñu waroon a moytu la loo xam ne waroon na bañ a am ndax li ko waral mooy euh, ay citoyens sénégalais yoo xam ne bëgg def seen i doxantu politique aussi bien pour le président que président de Tefal ak ñi composé coalition Yewwi Askan Wi yëpp bëgg a dem doxantu def seen meeting wala ñu def seen visite de seen seen militant ni ko président Macky Sall di ci ay visitam ay tournée politique ñooñu la amee sañ-sañ également ñoom en tant que citoyen sénégalais defee ko noonu tam kon nag bu fekkee ne loolu nas nañ ko ba war ko bëgg ko def ah, jaar fi war a jaar yëpp maanaam ci wàllu yëglu wax ndax parce que information ngay def yëglu ah, autorités yi nekk fii donc waroon nañ ko mën a autoriser ba pare euh, euh, sécuriser ko da nga xam ne manifestation bi danañ ko def ku nekk ñibbi ci jàmm ak salaam ndax loolu mooy démocratie Sénégal modèle la woon ci wàllu démocratie ci Afrique yëpp modèle la woon ci wàllu passation du pouvoir ci Afrique yëpp kon loolu ñu amoon ci démocratie nag nañ fexe ngelawaay ba nga xam ne kenn duñ ko delloo ginnaaw ndax lii yëpp li ko war bi nga xam ne Euh, constitution bi permettre ko yaakaar naa ne lii lépp moo ko waral ba nga xam ne euh, citoyen Sénégal bu jóg bëgg organiser sa meeting wala bëgg a ñaxtu ñu loolu doo ko fi defee loolu yaakaar naa recul démocratique la ndax loo ci mën di wax it Ablaye Wade bi mu fi doon dem moom loo ci mën dégg bàyyi woon na fi au moins euh, démocratie ku ne xamoon na amoon na ci réew mi liberté d'opinion liberté de la presse amoon na ci réew mi ku am la naqari da nga ko ñaxtu ku bëgg a wax également la naqari di nga ko wax jàmm ak salaam kon nag loolu yaakaar naa président Macky Sall moom mbetteel la ndax moom exemple la en 2012 kenn du ko fàtte duñ ko bëggee sonal dañ ko bëgg ko écarter carrément sénégalais yi seen bopp jugoon nañ sol seen tànk sol seen daal nekk wenn say topp ci am xeexal ko ba yaakaar naa tey ji loolu moo ko teg fii mu toog ñu président de la république kon nag loolu moom na fàttaliku loolu delloo la monnaie dañuy wax naar na fay xorom fexe na ba xam ne suñu doom yi jànguñu jur boobu di waroon a jàng ci école boobu yëpp dañ dañu réquisitionné école yi euh, logé fa la police gën a jànguñ ndax lan benn sénégalais bu war a def événement politique gëm boo xam ne bu légal la fu war a jaar jaan ñu ne ko bu doo ko fa defee te pendant ce temps yow yaa ngi koy def Tivaouane yaa ngi koy def euh, Thiès ñu mu la neexee sañ-sañ boobu nga am nag ñun jàpp nañ ne sañ-sañ bii la ñeneen ñoom également en tant que sénégalais ba war a mën taxaw organiser seen tournée politique ni ñu ko bëggee mm-hmm. kon lii li ko waral événement yi yëpp mooy président la république ndax moom mooy gardien la constitution moom mooy le chef de la police mooy le chef de la gendarmerie donc yu mel nii ñu ngi koy ñaax di ko fàttali 2012 rek li nga xam ne si nii bi ñu ko bëggee def ni ñu taxawoon ci wetam moom it naam gor ak kóllëre boo xam ne Sénégal yi ñu ko jiwoon ci kóllëre ci gore ne lañ ko delloo nguur bu waree jeex mu jeexal ko ci jàmm ak salaam ki nga xam ne moo ko war a wut mu wutu ko ci jàmm ak salaam mu nekk lu metti lool parce que euh, ay sénégalais ñoo fay liggéey am na si yoo xam ne sax ay sénégalais ñoo ci def seen xaalis Euh, bu ñu demee ba yu mel ni am mu yàqu loolu lu metti la ci ñoom vraiment ñu koy déplorer di ko ñaawlu te loolu lu ko waral mooy li ma la wax léegi rek mooy njiitu réew mi nga xam ne moo war a ci jël les devants ci mel nii ah, assurer la démocratie assurer la sécurité des personnes ak des biens ndox loolu wareefam la constitution bi noo ko jox wareef boobu noonu kon damay jàpp ne lii su amee rek ci moom la moom moom moo juum leneen ñu ngi koy ñaan mu fàttaliku yi nga xam ne fi mu jaar ba egsi Euh, war a mën a euh, bi ñu mën a amatee ñu mën ko moytu. démb ñoo ngi woon Sadio euh, gis ngeen ko image yi ñoo ngi woon Sadio fa la nekkoon def nañ ci profité wu nañ ci installé ay cellule de base avec coordinateur communal. muy El Hadji Guèye. bi ko noonu kasaalika noonu lañ jàllee également. Taïf defe ko noonu. ma profité invité la jeunesse sénégalaise ñu toll ci war a voté. nañ dem buñ tijjee liste électorale ñu inscrire ci seen carte téye ko. ndax loolu tetam mooy garant loolu bu ko defee bu ñu toll ñu ca tollee en deux mille vingt quatre ñu changé bi comme ni ñu ko defee woon en en deux mille douze ci jàmm ak salaam deret du tuuru bal du tàkk kooku uh, ngeen doon uh, teewlu kon uh, di Ibrahima Goumbala mooy ki jiite parti PRP bu Déthié Fall file ci commune bu Mbacké waaye bokk ci njiital parti bi file ci département bu Mbacké mbokk yi ci manifestation boobee Ibrahima Goumbala doon wax sax ci la ñuy des ndax boobee manifestation jamono ji arrêté nañ ci juróom benn fukki nit ak ak juróom-ñeent yu jamono ji la nag defeere nañu leen foofee ca njaareem ana nag kañu leen defeere ak itam mbir ma na mu demee ñu ciy ñëwaatal di Pape Saer ñu àndandoo teewlu ko seen lim toll na ci juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ñoom ñi ñoom lañu teg loxo ci jàppante yi amoon juma ji ñu weesu ci diggante takk der yi ak ñooñu Ousmane sonk yi ñu bëri ci ñoom doon ay élèves ñenn ñi day ndongo daara ñi ci des doon ay ouvrier ñett ci ñoom ginnaaw ba seen garde à vue jeexee lañ leen teggi loxo juróom-benn fukk ak juróom la yoon teg loxo Omar Sow sàmmkat la fukkeet ak juróom-ñaar la am Abdoulaye Diop. Baye Mor Gueye di élève nekk ci classe troisième feeñ jamono ci atum 2007 Baba Thiam Maguette Niang Mame Mor Diop Adama Dioum Elimane Diop Ndongo Samb Ngagne Diba Ablaye Sarr Cheikh Seck Makhoudia Mbeng Bada Diop Mamor Thioune Cheikh Diop ci Sow di élève am fukki at ak juróom-ñaar Sidi Ndiaye Anne Maam Góor Ngom Fallou Fall Ndongo Kane Abdou Salam Ndiaye Mame Baba Thiam di peintrekat feeñ jamono ci atum 2005 Modou Diouf Cheikh Ndong Serigne Assane Mbacke Ater Soxna Diop Djili Sow Abdoulahat Mbacke Abdoulaye Touré Cheikh Ndiaye Serigne Makhtar Diop Fallou mbay Maam Thierno Guèye di boulanger am fukki at ak juróom Jibi Mbaye di élève gane jamono ci atum 2005 Birane Fall di carreleur am fukki at ak juróom Mourtala fay di tailleur feeñ jamono ci atum 2005 Baara Sey Khadim Faye Serigne Talla Matar Konté Amdi Samb di élève feeñ jamono ci 2006 Daouda Sall Fallou Mbaye Ahmed Diallo Mbaye Niang Badanguer Mamadou Baylo Baldi Mamadou Mbaye Khadim Diop Fallou Ndiaye di mécanicien feeñ jamono ci atum 2005 Mamadou Ndiaye Tafa Cissé Pape Thiam Massaer Thiam Dame Sène Djibi Dieye Omar Diagne Déthié Faye El Hadj Sow Pape Ayib Lo Fallou Diène Buña Koné Mamadou Faye Khadim Gueye Fallou Niang Ousseynou Thiam ak Mama Diop di ndongo daara feeñ jamono ci atum 2006 ñoom juróom-benn fukk ak juróom-ñeent yi tegoon loxo ci jàppante amoon ci diggante ñooñu Ousmane Sonko ak takk der yi ci fàttali bokk ca Serigne Assane Mbacke Ateex mu lim na nañu ko ci biir ñoom ñooñee ci fàttali ñett ginnaaw bañ leen jàppee ci biir seen garde à jeexee lañ leen teggi loxo élèves yi nekk ci Mbacke di yëkkat seen kàddu di xamle ne fas yéene noonu banque seen loxo ñetti fan yu duñu ko fas yéene jàng lañu bëgg mooy ñenn ci seen moroomi ndongo yi yoon doon teg loxo lanu bëgg ñu bàyyi leen lan mooy xaar ñii ñu teg loxo ci jàppante yi amoon bu ñu sukkandikoo ci ñenn ñu seen xam-xam màcc ci wàllum yoon ñu ne bu sàggantul ñenn ñi mën nañ cee ba juróom benn weer seen ëllëg ñoom ñooñu ñu teg loxo dinañ ko xam ci àllarba ji ñu fas yéene taxaw ci kanamu yoon. sant ko gërëm ko Pape Saer mbay moom mu ñu doon ñëwal ci ñooñi kon ñu jàpp noonu mu ko waxee kon. di uh, juróom benn fukk ak juróom-ñeent yu jamono ji la nag uh, defere na leen waaye ci ñooñu tamit ñu gis ne ay elaw ak ay elaw ñi ngi ci mbokk yi ñaari waxtu ci bëccëg uh, fegg na juróom fukki minute ak ñeent ca commune bu Tooki Gaar jàpp nebbe di ay gox yu nekk ca njaareem ñu woyandi ci xibaar yi. rajo. UCAB ca foofee la ñuy dem uh, di commune bu uh, Tookigaar ndax uh, askan wa dëkkee ca dëkk yooyu di Nguñik Cabax ak Ndaayaan ak Seban di ay gox yu nekk foofee ca commune bu Tookigaar nag yëkkati nañu ay kàddu di yëglu nee nañu nag ay jafe-jafe yu méttee métti la ñuy jànkonteel ndax seen gox boobee du dara lu fa am du ndox du courant loolu yi nag waral ñuy xam ne ne ñaari weer la ñu may kilifa yi rek ngir ñu taxaw leen lu ko may rek danañu organiser ab doxum ñaxtu waaye leneen lu ñu xam ne tamit nee nañu sax ba defub déclaration génn parti génn coalition bi di Benno Bokk Yaakaar ka doon wax ci seen tour Bouna Bassirou Ndiaye ay kàddoom ñaan doo teewlu ko. maa ngi tudd Bouna Bassirou Ndiaye euh, dëkk ci village Zongo ñi ngi layti doon euh, benn ci village yi nga xam ne ñoo fi tase tey muy juróomi dëkk yoo xam ne tey dañ fi tase pour ñaxtu li nga xam ne mooy mbirum courant bi nga xam ne tey euh, jàppoon nañ ne maanaam mooy li nga xam ne moo gën a doon yitte pour ñun pour l'instant su passé ndox mi nga xam ne am nañ ko parce seetlu nañ ne boobu ba tey euh, courant baa ngi dugg ci ci fi nga xam ne moom la président vision bi nga xam ne la président am mooy que dëkk yëpp am courant ñun aussi ñu doon tey dëkk boo xam ne dafa bokk ci Sénégal mais soo seetloo mun nañ jàpp ne tey ba fi président toogee ba tey léegi bi bientôt plus de dix ans mënuñoo wax ne lii dugg na ci dëkk bi boo xam ne suñu suñu inter la boo xam ne day dañ koy jëfandikoo mu doon foo xam ne fii mooy ci Ngóoñig Layti Ngóoñig Miñaan ak euh, Ndaayaan jabax ak aussi Godagen voilà mu doon doon loo xam ne tey suñu waxee tey euh, que président dafay remporter ay au niveau du département c'est grâce aux zones rural maanaam ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk ci àll bi te seetlu nañ loo xam ne dañ koy joxe ñun dañ ciy mujjee te loolu jàpp nañ ne peut-être que su amee mun na ñun aussi maanaam béykat bi amul lu dul carte électeur am bi nga xam ne tey mun na dem ba jour ba nag moom itam mu jàppale ki nga xam ne da ko yaakaar ci moom mu jàppale ko ëllëg fii ak ay fan courant bi nga xam ne boobu ba tey ñu ngi jooytu di ko jooytu lu ma fukki at ñu koy jooytu mu war fee ñëw parce que courant bi à vrai dire dañoo wër dëkk yi ñu wër fii même pas 500 mètres courant yaa ngi fii loolu aussi ñu ciy félicité président bu baax a baax mais dafa jot aussi ñun ñu jot fii ak deux mois boo xam ne gis ñu benn réaction boo xam ne jóge na ci état bi dañuy organiser benn marche woote fi village yëpp xam nga tey village soo gisee fii ay seen représentant moo fi ñëw mais dañuy woote village yëpp annoncé suñu démission ci Benno Bokk Yaakaar ne jàppaleetul ñu leen ku ñuy jàppale la jàppale soo seetloo dëkk yi fii ci commune Tookigaar maanaam mënuñ fi wax ñoo xam ne tey dañuy yëngu ci privilège yi nga xam ne mooy indi nañ ko muy ndaw yi à chaque fois suñu seetloo suñu amee lu ñuy joxe loo xam ne intérêt la maanaam day yem au de la commune de Diourbel suñu soxlaa nag ñu leen votel ak ñëpp ñu ñëw fii ñu jàppale leen te nag euh, mënuñoo jàppale koo xam ne du ñu jàppale nag voilà si loolu passé aussi ñu fiy indil les village de Ndayane et de dañ leen a sélectionné woon ci ci programme électrification rurale boobu ba léegi gisuñu seen bopp ci loolu te ba léegi ñu ngi toog di xaar te bokk na ci village yi nga xamante ne ñoo gën a rëy à part la village fi nga xamante ne foofu la commune bi nekk soo xoolee tey village Ndayane mooy deuxième grand village bi nga xamante ne mooy moo moo moo moo ëpp ci commune bi soo génnee le village de Tooki léegi ngooñi soo ko boolee moo ëpp yeneen village yi pourquoi jusqu'à présent village yooyu mënuñoo am courant loolu dafa doon loo xamante ne suñu mébét la parce que mënuñoo dem sans courant suñu élèves yaa ngi nii fi lañ jógee di jàng ji euh, lii seen Ndayane ak seemi ne ci biir suñu ñëpp see bi sondeel la ñuy taal wala ñuy seen panneau solaire su faible dootuñ mën a jàng te loolu day impacté ci ci ci seen njàng li sama collègue bi wax i bu fay muy équité sociale parce que mënuma concevoir courant bi wër ñu ndombo te ñuy bokk ci askan wi di fay bokk am les mêmes droits que les autres te mënuñoo am courant mm. loolu bëgg nañ ñu indi ci saafara vraiment kooku euh, ngeen doon teewlu kon di euh, Moustapha Touré euh, dëkk ca dëkk boobee ka ngeen njëkkoon teewlu nag kookoy Bouna Bassirou Ndiaye moom it di yëkkatee kàddu rek loolu ñuy sàkk mooy noonu ñu leen ko waxee muy ay jafe-jafe yu ña ngi koy jànkonteel ca seen dëkk boobee di di Nguñik ak Ndaayaan ak Xaban di ay dëkk yu nekk foofee ca commune bu Tookigaar mbokk yi du ñu jógee Njaareem ak Tookigaar dañuy barasiku ñëwaat fii ci dëkk bu sell bi la Touba ndax ay fan a ngi nii kat borom wata yeeg ñu yoromoto yeeg ñiy jëfandikoo essence Afrique ñi ciy liggéeyee ay jafe-jafe la dund ñoom kat nee nañu mënatuñoo gis essence bi ci station yi koy jaay loolu yi nag lañ xam ne ne gàllankoor dëgg la leen jural ndax jamono ji seenub liggéey mënuñu koo def loolu yi nag waral ñuy yëglu ñenn ca ñoom seen i ay kàddu ñu àndandoo teewlu leen. Abdou Karim Niang laa tudd. non aw ma essence moom man moom na lool lool lool lu matu deux jours nii mënuñu am essence waaw xaw ni mu demee nii moom essence moom na lool moom. ci dara te ci la ñuy jox suñu activités yi yëpp nag. suñuy liggéey lépp ci lañ koy dox mënuñu am essence boobu ah bu baax bu lu ñu ci dimbale ñu jël ñu ñu ci dimbale moom ñu jël wax dëgg yàlla moom soxla nañ ko lool na ko moom gars yi suñ toog nii peut-être mën nañoo ne wala xaw ma nu mu demee ni daal man naa am waaye suñ toll nii moom soxla nañ ko lool moom dama ñuy dëkk ñu xam nga yaa ngi gis nii damaa fekk nii ma toog essence dama ko wër ba sonn dem ba léegi nag peinture laay liggéey waaw dem essence il faut que ñu laaj essence démb ba tey ñu ngi nii rek fi la njëgee elton nañu njëgee essence nañu dox léeg-léeg mbàkk tey suba mbàkk laa jógee essence si ñaar pour laa jógee dem ba ba elton di jógee essence te du yor noonu tey suba mu xëyee mbàkk laa jógee essence doogu ñëw fii dañu war bu bëgg a doo ba essence te du yoon moom gars yi moom ñu ñëpp moom war nañu gars yi moom dañoo yàqal ñun nii ñun ñi liggéey si peinture bi ak ñiy jaay ñun la yàqal ñu àggoon dimbal daal affaire yi gën a ñëwaat daal mooy xéewal gi maa ko moo ñu baare de boo nga dem na nga jël nga yónnee fee doo ko ñëw dañ a dimbal daal dimbali Mamadou Diop chauffeur taxi Diourbel ma ne metti na trop si ñun de ñun chauffeur yi ñun ñuy liggéey moom metti na si ñun trop di wax nag état mu xoolaat ni bu baax parce que transport mooy doxal lépp bu transport amul moom dara du dara du dox mu ngi mel ni ceeb ak diw rek saa yu xëyee dañ koy wut oto yi nag noonu la demee comme que ci la ñuy tedd ñun chaque jour nañu ñooñu gëstu bu baax nga xam ne ñun waa Touba amuñ dara lu dul transport. waaw dëkk bu toll ni Touba amul essence. waaw waaw mais gasoil bi ñu ngi ñaan mu wàññi ko de. waaw mu wàññi prix bu baax parce que cent franc yi mu ci yokk moom bëri na moom mosuñ koo gis ay cinquante lañ doon gis ay vingt cinq ay trente franc mais essence nii nii jékkati cent franc teg ko ci xoolal xoolal vingt litres gasoil di jar quinze mille cent au lieu que treize cent quinze mille cent deux mille loolu métti na trop. ñooñu di askan wi nekk ci eh, diggante eh, Touba ak eh, diggante biir dëkk bu sell bi la di Touba noonu ñu leen ko waxee nag muy essence bu jamono ji mënatuñu ko gis ci jaayukaay yi nekk file ci Touba loolu yi nag waral ñu yéglu mbokk yi kon àgg nañ ci pàcc gi mujj ci xibaar yi muy li ci yéenekaay yi ñu ci ànd ak Pape Sayer Mbaye similio wàllum politique gi ràññee loo ci yéenekaay yi bi xëy di xam ne ci ñoom ñoo naqar loo ko ñaalu taxawaay bi nga xam ne kon nguur gi def na ko jamono ji yéenekaay bi dañu xamal ne jàpp gi nga xam ne kon ñu bëree bëri dañ leen ci teg la waxta daan naka tegul fenn waaye tam tëj gi nga xam ne ko moom lañ tëj ñenn ñi ñenn ñi ne kon dañ leen sëkkatal di leen harcelé ko xupp su naataango yi di ne ñoo koy naqarlu ci bataaxal wu xaatim xam kon ñenn ay faat fitna ju ñu bëree bëri nag ña na ko ca rek mooy nga leen ko yéenekaay bi xam le ne lii bokk ci li nga xam ne kon ño ngi ko cay ci bataaxal bu gudd bi nga xam ne kon waa Pastef ñoom jot na ko ca bi bataaxal ba di ci yëkkati ay kàddoom ne nag singali gi nga ko li nga xam ne moom lañu taxawee ci wetu Ousmane Sonko ak ne kon fàtt nañu ko ca yéeni kaay bi di xam la ne présidentielle 2024 yi a gàllankoor kii Ousmane Sonko loole nag du neex ko nangu ci néew moo xëy di xabal ne waa Pastef Pastef ñoom nag ñu ngi ko jébbal kuréel yi nga xam ne ko ñooy xeex ak yelleefu doomu am ne kon a nangu bés bi le jour yéen kaay moo xëy duñu ko jottali Pastef yéen kaay bi loo xam ne kon jëm na rek ci wàllu ko li nga xam ne kon mooy kuréel yi taxaw di xeex ak doomu aadama ngir rek ñu mën a xool li mi nga xam ne kon moom la nguur gi di jëfee ñu teel caa wax ngir rek mbir ma dakk ci kuréel boo xam ne kon daanaka juróomi xët la doon na ci li nga xam ne kon moom la ne def ci seen permanence gi nga xam ne kon léeg-léeg dugg fa caxat caxatee ko waaye tam du jëm ci wàll ka li nga xam ne kon moo di ab campagne boo ko waxal lépp loo xam ne kon doon na lu leen di yàqal bi di xam le ne li nga xam ne kon moom la ñu yëkk teg ko seenu der la nu bëgg mu dakk nee jamono ji xupp gi ak xooxatal gi la nu bëgg mu dakk ci li nga xam ne kon moo di doxale nu nguur gi nga xam ne mi ngi koy jëm fi seen kaw Sud Quotidien yéen ci kanamu kaay bi di xam la ne jamono ji kay kuréel yi yore wàllu xeexu ak yelleefu doomu aadama kon nag ñii nga xam ne ko ñoo di waa Pastef ñenn àndal woon nañ leen ne nag mbir moom nañ ci def abit teel cee wax balaa nag muy jéggi dayoo ba tey lu jëm ci wàllu ko lii di Pastef libération yéen kaay ma ngay xam la ginnaaw manifestation bi nga xam ne kon dañu koo ca Mbàkke juróom bi di xam la ne bokk na sa ñeent ñoom ay élèves yoo xam ne ak Benno Bokk doon seen ay xam ne nekk nañu xam la doon nit xam ñoom doon ñu àndal ñoom fi mu toll nii ñu bëri naka ña tàmbali naka di feeñal seen taxawaay ba tey lu jëm ci wàll ka ñàkk leer goo xam ne kon xamagun fan na na taxawe ci wàllu candidature bu président Macky Sall yéen kaa bi xam ne na parti allié ne kon ñoom ñoo nekk ci biir Benno Bokk ne yaa ngi taxaw di xool lu jëm ci wàllu ko taxawaay bi noo cee def waa parti socialiste yéen kaay bi ne naka door nañ ci aw waxtaan waaye tam ñii di xam kon ñoom ñoo di waa LD ñoom naka ña nga seen ay kàddu di sampi laaj ñii di secrétariat général bu AFP bu Moustapha Niass yéen bi xam ne ne ñoom ña gën a dëggal seen ànd ak seen bokk ci biir benn Bokk Yaakaar doon coalition bi nga xam ne kon jiitu le président Macky Sall moo ko jiite yéen kaa bi di critique moom la ne kon moom lañ nemmee ko ci biir réew mi yéen kaa bi di eh, xam ne benn yoon ci li nga xam ne kon moo jëm eh, ci wàllu bi mandat bi nga xam ne kon président Macky Sall ndax dana ko wut kenn xamagu ci dara yéen kaa bi ne lii nag bokk na ci li nga xam ne kon moo nar a xamb taal bi su naataango ba tey di xam le rek ne jamono ji kay li xeeñ ci biir réew Sénégal neexul amul dara ndax réew mi dana amul nguur gi yéene kaa bi di xam ne nekk ne loolee bokk na ci li nga xam ne kon dañu ko ci seen a fexeel sa morom ko ñaar fukk ak ñetti dogal yi nga xam ne kon nguur gi jëloon na ko ginnaaw accident bi nga xam ne kon moo amoon six kilos su naataangooy xëy di xamal ne daanaka boo koy xool lu jege weer donc nag mbir mi ba ñu ko taxawale ak léegi waaye nag lépp dafa mel ne fi mu toll nii na su naataangoo yi mu del si kay di xam ne nag fi ko matuwaay dafa mel ne fi mu toll nii tàmbali nañ sax xaat di ko fàtte accident yi nga xam ne kon gis nañu ko ci wàllu ko yoon yi yéen kaay bi di xam le rek ne lim bu takku di ca faatu tax na nguur gi gu woote woon ci ab ba jëloon ci matuwaay matuwaay nag indi woon fi ak fitna ak gerew boo xam ne amoon na fi waaye nag boobaa léegi fi mu toll nag mbir mi ñu ngi koy bëgg a fàtte le soleil yéene kaay moom xëy na ci xëtam mu njëkk deltuwaat fi mu toll nii nag lu jëm ci wàllu ko taxawaay pour réew mi ci wàllum koom ak démocratie ak benno boo xam ne ko ci biir réew mi nee na loolee loo xam ne kon du mën a ñàkk faaw kenn ku ci ne am ci nekk taxawaay boo xam ne kon danga ko ci def yéenekaay bi di xam ne ne bindikat bi moom moo xaatim lu ni mel Dakar actu point com yéenekaay bi nekk ci internet bi moo xëy dinu xamal rek ne jamono ji lu jëm ci wàllu ko manifestation yi nga xam ne kon moo amoon ci dëkk bu sell bii di Touba Dakar actu point com nekk ci internet bi xëy nag duñu fësalal ab bataaxal doon liste bi nga xam ne ñëpp ñu ñu jàpp doon fan doon juróom benn fukk juróom ñeent ñoo xam ne kon jàppoon nañ ca su naataangooy xëy di samp ci ay laaj ne nag ñi nga xam ne kon ñoom lañu jàppoon loole nag li jëm ci wàllu wi ñoom ñooy ñan waaye tam lan moo leen mën a fekk ci wàllu jàpp gi suñu naataango xëy di xamal ne boo sàggontu day ñenn ñi juróom benn weeri kaso mën nañ ko ca nag ñoo ñoo xam ne kon ay ouvrier ñoom ñëpp jàppaale nañ leen ci wàllu ko mbir moom la suñu naataango yi di e média point sn suñu naataango nekk internet bi ba tey ma nga ca mel ni ko mbir mu doon jàpp goo xam ne kon jàpp moo doon am ci Kër Massar am nag musiba na teg ko ba ña nga ca ñoom avocat Ousmane Sonko yi chambre d'accusation nekk ci talaata ji ngir rek jéem a xool lu jëm ci wàllu ko këy ba nga xam ne kon moom bu dugal ngir rek ñu niilal lu jëm ci wàllu taxaw boobu suñu naataango yi di xam le ne fi mu toll nii nag mbir ma ño ngi ko xam naka la ko igfm point sn mi ñuy tàgge benn xam ne kon xamoon nañ ko lool ci biir réewum euh, woon na ci lool ci ay ndam yoo xam ne kon jot na ko am ci biir réew ba ca bitim na ko ci taxawaay boo xam ne kon amoon na ko ci ci ay ndam ak ay raay yoo xam ne kon jotoon na ko am igfm point waaye seetlu na xamal ne bi muy am ñeent fukk ak ñeenti at ci la wàccu liggéey mbokk yi ne mbokk dinañu lëpp incha allah. UCAB FM. li gën a ci yéen kaay. Papa Saer Mbaye. yi fii ci UCAB FM ak Mamadou Moustapha Ndiaye. sant ko gërëm ko moom Papa Saer Mbaye ah, mi ñu doon jàngal li ci yéene kaay mbokk yi kon lii mooy li fi woon ci ay xibaar neskis ñu def fàttali ci li ci gënoon a fës. de communication. université Cheikh Ahmadou Bamba. bokkoon na li ci gënoon a fees ci xibaar yi ñu leen ko doon faram fàcceel ay fan yu néew des ngir ñu amal màggalu ko Kazu Rajab ginnaaw nag ba ñu amalee CRD CLD démb nag lañ doon amal réunion d'évaluation bi ñu ngi ko doon amalee file ci Touba ci njiital ki la di Amidoune Diop di préfet bu Mbàkke moom yi mu fi moom itam fa ñu toll ca wàccaay wa ak solos màggal gi teewlu ngeen ko ci xibaar yi ba tey itam mbokk yi wax nañ ci wàññi gu muy recensement ko fee amal loolu yi nag waral Serigne Saliou Dieng may chef de village bu Xatul Moubarak yëkkati ay kàddoom ngir soññ rek askan wi ngir ñu taxawee ci ak yombalal mbir mi ñiy ñëw fi la ci dëkk bi ngir liggéey lu ni mel ba tey tam wax nañ ci wàllu politique ñi ñooñu PRP yu Déthié bu Mbacké yëkkati ay kàddoom ñëwaat ci manifestation yi maanaam jàmmarloo bi fi amoon ci diggante takk der yeeg manifestant yi loolu yi nag ñuy xam ne ne luy njig njàkk kilifa yi tere meeting bi ñooy njàkk loolu yi nag muy xam ne dana delloo démocratie Sénégal teewlu ngeen ki la di Ibrahima Goumbala mi leen jiite fi tey ci manifestation boob yi Papa Saer Mbaye doon nañu ñëwaatal ci nit ñi ñu arrêté maanaam ñi ñu jàpp ñu toll ci juróom benn fukk ak juróom-ñeent ñooñu nag ñu fas yéene àtte suba ci ni ko Papa Saer Mbaye waxee mbokk yi ba tey ci xibaar yi dem nañu foofee ca commune bu Tooki Gaar wax ca askan wa yeewoo ca dëkk yee de Nguñik Jabax Ndaayaan ak Sebaan ñoom itam yëkkati ay kàddu yi xam ne ne jamono ji seen gox yooye amul dara lu ni mel nag waral ñu yëglu di xam ne ne dinañ am na nag ab toogaayu ñaxtu wala ab marché waaye dañu xam ne ne ñaari weer lañ may njiitum réew mi bu saafarul seen i danañ def seen déclaration génn coalition bi di coalition Benno Bokk Yaakaar teewlu ngeen leen ci biir jotaayu xibaar yi manquim essence di carburant bi ñuy faral di utiliser nag ci diggante ah, Touba wala wala ci biir ah, Touba ñi koy jëfandikoo nag yëkkati ay kàddu yi xam ne jamono ji daal ay jafe-jafe yi méttee méttee la ñuy jànkoonte ndax siiduk essence rek mënuñu koo gis ah, fi la ci Touba teewlu ngeen ci xibaar yi mbokk yi lii lañ amoon yéene àggee leen ko ci xibaar li ci yéene kon ñu leen di jox dig daje incha allahu rabbi ci xibaaru guddi gi ngeen fas yéene ci ànd ak Papa Saer Mbaye Cheikh Bey mooy ki bi Modou Moustapha Ndiaye mooy ki leen ko doon jottali yéer yàlla miy borom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla ñu defal jàmm sutura ak teranga barke borom dëkk bi ñoon àddoo ngeen di teewlu jërë ngeen jëf